suba tey nañu déglu RFM matin émission bi di yee waa Sénégal. Euh, sunu gan Ablaye Sène salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu Georges Déthié Diop yaay euh, ki nga xam ni moom lañ dénk organiser gi ci forum mondial de l'eau Euh, waxtaanee ndox ci àddina te Dakar waral daleel euh, yëf yi déwén 2022 euh, neuvième forum mondial bi waaye dafa fekk ni ëllëg ak gannaaw ëllëg fii ci Diamniadio di ngeen fi daje yéen ñi ko seq ñëpp ngir waajal loola forum mu ren bu déwén bi nag li ko tax a jóg mooy indi tontu ci jafe-jafe ndox ci àddina buñ dee def xayma ci Afrique jot ci ndox fu mu toll ñana ci jot ak fu mu manqué. jërëjëf sëñ bi Fall dañ bi Diop maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu seeni auditeur ngeen may may itam ma nuyu seen président Youssou Ndour bi nga xam ne mooy ambassadeur bu forum mondial de l'eau bi nga xam ne dañ koy dalal fii Dakar eh, li nga laaj nag lu am solo la parce que ndox moom mooy li nga xam ne mooy dundal nit moo koy may mu mën a toppatoo wërgu yaram waaye mooy tax itam mu mën dundal. Euh, boppam ci wàllu liggéey mbéy ak leneen boo seetee nag Afrique ci ni nga ko waxee sànq ñaata ñoo am ndox mën nañu wax ne boo jëlee téeméer yu nekk ci Afrique 60 pour cent rek ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ndox ci anam yi nga xam ne anam yu sell la maanaam fukk yoo jot yu soxla ndox juróom-benn yi rekk ñoom ñoo am ndox muy nag situation bu doy waar. boo seetee ne ndox itam eh, ndox booy naan la waaye itam soo naanee ndox mi il faut itam nga def li ñuy wax assainissement ci wàllu assainissement itam mën nañu wax ne ci Afrique 40 pour cent rek ñoo am accès ci assainissement muy fukk yoo gis eh, daanaka ñeent rek ñoom ñoo ko am loolu nag lu am solo la parce que loolu mooy wone taxawaay bi nga xam ne soxla nañ koo taxaw pour mën a avancer loo suñuy objectif ci wàll boobu waaye nag Sénégal nekk na réew moo xam ne ci biir Afrique ràññee nañ ko ci bu baax a baax a baax parce que bu boo déggee li nga laaj ci ci Afrique mënuñu koo laaj ci Sénégal nga seet ne Sénégal wees na foofu bu baax a baax a hmm, baax. Sénégal ba ne problème ci ndox. torop torop naan geeg assainissement gi moom. torop eh, jàmbat gi bëri na lool. torop eh, Sénégal am na fii eh, waaye li ma la bëggoon woon rek moom mooy. boo seetee li nga laaj Afrique boo ne 60 pour cent Afrique da ngay naan Sénégal 90 pour cent ci accès muy lu am solo boo déggee ñuy wax forum mondial de l'eau nag euh, Sénégal am na ko feneen am na ko àddina si yëpp am nañ ko moo tax dañu jàpp ne tey ndox moo war a nekk ci xolli priorité politique yi euh, état yëpp loolu moo waral nag solo bi nga xam ne forum bi am na ko. boo tax itam ñu war a fexe bo Euh, ñëpp mën a booloo fii muy ay chef d'état muy ay ministre muy société civile muy secteur privé pour ñu seet naka la ñuy taxawoo wàllu ndox mi pour ñu mën assurer sécurité ndox fépp ak pour ñëpp. mais mais bu ñu nee soixante quelque pour cent ci accès wu ndox te ñu seetlu ni itam euh, Afrique ndox maa ngi ci suuf bëri na lan mooy problème bi. problème bi da nga ne bëri na boo boo doon wax ci tubaab mbaa ci séeréer day gën a leer maanaam ndox mi disponibilité bi am na. Mhm. waaye accès bi moo jafee parce que ndox mi mën na am waaye nekk ci suuf ci suuf a suuf mbaa fu soree sori pour nga nit ki jot ko nag il faut nga def financement def ay infrastructure problème bi fi mu nekk essentiellement moom mooy infrastructure doyuñ xaalis bi ko war a liggéey euh, dugaluñ ko ca donc loolu moo waral ñu ne nañu def priorité pour que ñu mën a def ay financement yu am solo yoo xam ne financement yooyu danañu may ñu mën a yëkkati niveau infrastructure yi yëkkati financement yi pour exploitation bi yëkkati itam li wax gouvernance pour que ñu mën a améliorer accès bi en disponibilité bi nga wax ne bëri na parce que Afrique boo jëloon fleuve Congo rek ci boppam mën na may ndox Afrique yëpp boo may Europe waaye gis nga même ci réew mooma ay jafe-jafe ñu fa waaye nag problème bi dafa nekk ne ndox mën na nekk fii waaye nag pour na ngay defee ay pexe ci technique ci ay infra ba nit ki jot ko muy accès loolu mooy problème bi. accès bi euh, euh, jafe-jafe la. Mm-hmm. leneen itam di wàllum sécurité wu ndox mi kaaraange gi ci wàllum ndox mi. Mm-hmm. lan mooy niveau de sécurité as tuut la ñu amagum ndax nee nga 60 nangam pour cent euh, du li nga xamante ne lu lu ñu rafetlu. Mm-hmm. dëgg la dëgg la léegi li ñu bëgg moom mooy li ñuy wax accès universel à l'eau maanaam 100 pour cent képp koo xam ne rek nit nga ñu fexe àddina si booloo. bu ñu def ay infrastructures yu tax képp koo xam ne rek fooy dund ñu mën laa jox accès léegi nag problème sécurité ndox boo koy wax dafa bëri ay pàcc. xam nga léegi ñu ngi naan euh, changement climatique te bu changement climatique bu ñu koy wax dañuy naan naka lay impacter ndox maanaam am na foo xam ne ay dex la woon euh, bëri woon ndox lool waaye changement climat yi ñëw boo dex yooyu seen doole wàññeeku. kon naka lañuy defee bo fexe ba def ay stockage ay barrage mbaa yenn infrastructure yoo xam ne euh, dañuy dañuy dajal ndox moomu pour que buñ ko soxlaa nag ndox moomu ñu mën ko jot kooku benn la ñaareel bi sécurité ndox mën nga koo seet itam ci wàllu infrastructure ñun Dakar dund nañu fi jamono boo xam ne eh, tuyau euh, yàqoo na Kër Momar Sarr nit ñi tumuranke ci kon nak ngay defee bo pour nga jox dëkk bu toll ni Dakar ndox mu mën a jóge mu bañ a jóge rek ci benn bërëb da ngay fexe bu mu mën a jógee ci ay bërëb yu bëree bëri comme sax boo amee problème benn euh, ci benn yoon bi yeneen yoon yi mën ci loolu itam ci wàllu sécurité ndox la mën nga itam ne dana am ay situation de crise situation crise yi bu amee muy crise humanitaire mbaa crise catastrophique naka la ñuy fexe bo ci biir crise boobu Euh, nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci ci bërëb yooyu mën di jot ndox parce que euh, day gis nañu ne ay inondation su amee jafe-jafe mën na am pour nga am ndox te ndox moom ala kulli aali nekk na loo xam ne nit mënu koo ñàkk. pour mën na dund mbaa mën a seelal bopp mais inondation yooyu sax souvent euh, sànq wax nga ko moo di euh, réchauffement climatique ak jafe-jafe yi nga xamante ne da koy indi ci wàll ci wàllum ndox mais euh, réchauffement climatique boobu mooy indi inondation est-ce que itam mënuñoo jël réchauffement climatique boobu ngir mu am ci avantage ci wàllu ndox ma nga xamante ne da koy indi mbënn mi xam nga wàllu réchauffement climatique li tax mu jafe mhm. moom mooy dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo natt tey dafay indi ñàkk ndox muy changement climatique ñëw indi sécheresse. indi itam yenn saa ndox mu bëri. nga nga xëy mu indi ndox mu bëri te kenn mënu ko modéliser. loolu moo tax mbiru changement climatique jafeñ xam nga li ni tey euh, médecins yi xawee jaaxle ci wàllu euh, ñu naan Covid noonu la ingénieurs itam xaw a jaaxle ci wàllu changement climatique waaye li am solo moom mooy euh, réew mu nekk dafa war a développer li ñuy wax ay programme de résilience fexe bo ne su ndox ñàkkee bu bu taw amul ren naka lay def ak yan pexe ak yan infrastructure ak yan ouvrage de stockage laay def bo bu dee benn at la bu ñaari at mu am sécheresse naka lay def bu jàll ko te du ma am jafe-jafe bu dee dafa bëri ndox itam ci wàllu inondation naka lay def bu am ay canalisation mba ay canaux mbaa itam ay bassin de rétention bu loolu jàll loolu mooy li ñuy wax programme résilience climatique. Mm, mais bu ñu dellusee Ablaye Sène ci ci Sénégal euh, fàttali ni euh, projet Vallée Fossile yow lañ ko dénkoon ci réew mi euh, at yi ci gannaaw. mu mm-hmm. ñoo comprendre jafe-jafe ndox am ci taax yi nee nga fukki sénégalais yoo jël juróom-ñeenti jot nañ ci ndox mi. Mm-hmm. xam naa ñi dund jafe-jafe dinañ ñun lu tax bokkuñ ca. Mm-hmm. manqué ndox ci taax. kaw gi bu manqué wul itam. Euh, manqué sax am na fa waaye bu manqué lu itam jot ca jafe lool. Mm. seer lool. Mm. ndax waa kaw gi ñoo gën a seer lef li ñuy fay ndox ñu nekk ci ci taax. Mm-hmm. loolu nu mën a nekkee réew moo xam ni daanaka li euh, euh, jox ndox ci capitalam di Ndakaaru fenn rek lañ ko jëlee mooy Lac de Guiers usine samp Kër Momar Sarr est-ce que Sénégal yéexul juumul ca wàllu séddalam ndox ci askan wi ca ba réew mi dem dem réew ba léegi. Euh, déedéet defe naa ne euh, boo seetee mbir mi ni mu ni mu évoluer nga xam ne am na logique bu njëkk dakaar ñu dëkk dakaar xam nañ ne ndoxi dakaar yëpp ci forage yi la doon jóge ñu dem a dem ba forage yooyu doyatuñu ñu dem uti ay forage Pout mu créer fa ay problème parce que ay tool yoo xam ne ay tool yu màngook yeneen yoo xam ne demoon nañu ba euh, xaw a sonn parce que ndox mi ñu doon jëlee ci forage yi doon na sonnal napp yi ba béykat yi dootuñu ci mën a jëlee ñu ne nañu continuer dem fu gën a sori dema dema dem ba daanaka ndox mi war a jóge ci suuf si mu ñu ak i fer mbaa nappe souterraine doyatul ñu ne ah léegi nag li des pexe moom mooy am na defu Sénégal boo xam ne eh, yàlla defal nañu ko ñu bokk nag ak yeneen réew war nañ faa mën a jëlee ci ndox loolu moo indi ñu jóge ci forage yi Dakar yi dem Pout dem Thiès dem boo euh, yegg euh, boori euh, Louga ba léegi ñu ñu ne ndox mi boo fàttalikoo itam Sénégal nekkul ne da doon xaar rek loolu yëpp dañ ko planifié woon demoon nañ boo wax nga fii vallée fossile mënoon nañu wax canal du Cayor ñu ne ah. pour indi ndox mi est-ce dañ ko war a def ci tuyau ndax dañ ko war a def ci canal waaye soo déggee ma ne la juumuñ ci yoon bi dama la bëgg woon ne planification bi dafa am logique bu mu toppoon lii moo gën a jege moo gën a yomb mooy forage yi ñuy dem nit ñi di bëri di bëree bëree boo ñëpp xam ne 73 su année 70 yi année yu jafeñ la woon parce que dañ dem nañ bu euh, maral gi indi explosion démographique ci Dakar bi mu betteatee nag ñu ne léegi nag nañu fexe uti ndox mi fu gën a sori léegi nag li am solo moom mooy euh, am nañu fleuve Sénégal ni nga ko waxee fleuve Sénégal nag euh, yàlla may nañu ko ñu bokk ak ay nit naka la defee ba ndox mooma nga xam ne lu bëree bëri ñu naan 10 milliards mètre cube mu ngi dellu ci géej gi di yàq boo gis nañu la am Saint-Louis ay jamonoom nak lañuy def ba jël ci une partie. pour maintenant gën a yokk doole bi te loolu ñu ngi ci incha allah. Mm. ñu ngi ci. léegi waa kaw gi. Mm. ak coono yi ñuy daj ci ndox mi. Mm. loolu moom lu ci saafara. alors kaw gi xam nga ne am na effort yu bëri luñ ci defoon bi ñu demee ba naan tuddee nañu président Sénégal monsieur Forage loolu wane woon na pas-pas li am solo moom mooy xam nga joxe ndox ci ay dëkk yu tas. dafa gën a jafeñ ne joxe ñu daje parce que bu dee euh, dëkk bu bu mag la nga da ngay indi rek def benn château d'eau boobu jox ñëpp euh, mën ngay kon jël benn château mu nekk pour dix mille personne vingt mille personnes bu dee nag dëkk yi dañuy tas ni nga xam ne noonu la réew mi doxee surtout suma mbokk tukulóor yi ak pël yi léegi da nga war a fexe ba euh, gox goxaan yu ndaw yu nekk da nga def forage am. ak château d'eau loolu day indi nag mu gën a cher parce que la nga xam ne da nga ko doon def pour fukki junni nit nga boo xaajee njëg bi par benn benn benn boo ko defee nag pour junni nit coût bi coût unité dafay cher loolu mooy problème bi waaye nag li nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy xalaat moom mooy li ñu wax péréquation maanaam fexe ba euh, gis nga électricité tey boo nekkee ndakaar li ngay fay ngay fay fële boo demee jaxaw waaye xam nga ne la muy jar tigi tigi tigi jaxaw peut-être yéen bokk la gi muy jar fii waaye benn société la léegi dañuy seet nag yan pexe ni nga ko waxee lañu war a tëral ba euh, réewi taax yi ak réewi euh, àll bi ñu dugal leen ci benn système boo xam ne dañuy def péréquation maanaam dañuy dimbalante ba ñu ne daal Sénégal yépp benn prix la. te ñu ngi ay jéego ñeneen ñu ñu ñu daanalee 30 secondes. ci hmm. ndaje mi nga xam ni ëllëg ak gannaaw ëllëg di ngeen xamal ci jam ñaajo ngir waajal forum mondial de l'eau bi Dakar di daloo déwén. Hmm. Euh, lu ngeen di euh, séntu ci ndajem ëllëg bi ci tënk. li ci am solo moom mooy euh, mbas ñi tax na ñu dàqoon forum bi waaye nag terwul ñun depuis 2019 ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ba boole nañ lu ëpp junniy. acteurs ci àddina si ñuy waxtaan pour togg lan la war a forum bi nekk la ñu liggéey nag la bëgg jébbal àddina si le ak le 15 maanaam ñoom ñu ñëw wone ne li ñu waxtaanee moom mooy lii lii mooy suñuy proposition dañu bëgg nag pour forom bi teg loxoom waxtaane sujet yi ci ay session ci ay initiative loolu moom mooy tax bu ñu fa génnee ñu mën a jublu ci li war a nekk programme yu forum bi ñëpp mën cee dugal seen loxo ba ñu mën a def un forum historique boo xam ne àddina si yëpp danañ ko fàttaliku ci njëriñ li muy jural àddina si. jërëjëf Abdoulaye Sène secrétaire exécutif euh, neuvième forum mondial de l'eau bi am déwén euh, ci Sénégal ñu koy wax euh, Dakar 2022 nekkoon nga ay jamono président conseil régional bu bu bu Fatick da bàyyi politique xam nga nag politique nu nekk nga koy defee euh, defe naa ne nag. Euh, maanaam ni ko ñoom Macky Sall di defee dafa yaa ngi koy def ba léegi. waaye ma nag dama féetali suma la ma la ma la ma yaakaar ni moom laa gën a mën te mu gën a am njëriñ itam ci ci réew mi suma xam-xam màcc ci loolu muy wàllu ndox euh, léegi maa ngi koy toppatoo Sénégal waaye xam nga ni dam am na ay ndomb ci Afrique de l'Ouest léegi. ci global loolu sax nag euh, Ablaye Sène moo ëppal njëriñ askan wi jërëjëf. ñu yendu ak jàmm jërëjëf.